mbokk yi teewlu leen ma tegtal leen maktabatul xaddim di wecceku lu jëm ci ay téere alxuraan wala xasida ak ya ca ñu ngi nekk ci Touba Daaru jàkkaarloo ak bureau chef de village bi ci wetu mbaar mi kon nag yéen ñi ittewoo ay téere alxuraanul karim moo xam yu ñu moole fii ci réew mi wala bitim réew ay xasaayit yu ñu bind ay mbind yu fasantikoo ci ay mool yu mucc ayib ay téere xam-xam ay yu murit yu ci mel ni ay baylaxat ay maxtu ay marakis kurus sijaada jullikaay bu mag wala bu ndaw ay moket yu mag ngir kuréel yi ak ay kaggu fii ci maktabatul xadim am na fi ay parfum yu mucc ayib te neex lool bokk na ci sikki misk pàccoli wala janatu nahim maktabatul xadim ngir beneen loxo daara alxuraan yi fàggul na leen boolem jumtukaay yi ñuy ittewoo lu ci mel ni àlluwa daa xalima ak ay gaal yu dëgër laxasaay baay faal yi nag fàttewu ko benn yoon ci ay der yu dëgër mag maktabatul xadim am na fi itam ndoxum sam sam ay jàllaabi ay dàll yu dëgër yu bàyyee ko Marok gannaaw loolu lépp nag maktabatul xadim danañ defar ay doll moo xam muy yu mag wala yu ndaw danañ def plastification ak photocopie kon nag yéen ñi màggal si te bëgg ay sërice yu mucc ayib gaaw leen daal di ñëw seet si maktabatul xadim ñu ngi ci Touba Daarul Xuddus jàkkaarloo ak bureau chef de village bi ci wetu mbaar mi mën ngeen leen a woo ci 77 722 12 02 wala 76 285 07 09 maktabatul xadim moo leen di ñaanal màggalu jàmm établissement waa kër Serigne Massamba Kébé et frère ginnaaw bi mu ñaanalee xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal seen wasila Serigne Mamor Mbacke Massamba moo leen di indil ndox mu neex ngir ànd ak yéen ci màggal gi. Nizone ndox mu neex sel te bëri ay njariñ làmboo ay ferñeent yu ci mel ni vitamine B3 vitamine B6 ak B12 ndox Mizone baax lool ci coono dina leen jàppale ci reesal gannaaw boo leen xewloo ba pare maanaam ci seen wàllu digestion yoon mënul ñàkk benn yoon ci bernde màggal képp ku ci itewoo man nga daal di gaaw jokkoog établissement waa kër Serigne ma Kébé et frère ñu ngi nekk ci ancien garage jàkkaarloo ak kër Serigne Touba gi nekk ci Daaru Manaan ci 76 474 38 63 wala ci 77 575 58 71 wala ci 77 970 40 92 établissement waa kër Serigne ma Kébé et frère ci njiitu Serigne Mamor Kébé ñoo leen di ñaanal màggalu jàmm am Elite Fireball xanaa du da nga bëgg aar sa oto ci lépp luy tàkk-tàkk na sa xel dal man la bul bu bleu bi nga xam ne loolu rek kay sama yitte maa ngi tudd Elite Fireball ngir jëfandikoo ma lu yomb la danga may jël rek daal di may fenn ci sa capot oto bi su ko defee ma sax si di la aar si lépp lu nar ak tàkk ma daal di koy fay ci nu mu gën a wóoree gën koo gaawee ngir am ma gaawal gaaw woo Indus Supply si 33 836 06 36 wala lapip si 33 825 44 11. Vous souhaitez préserver votre voiture des incendies? Rassurez-vous, je suis la petite boule bleue magique qui est faite pour cela. Je m'appelle

ni de flamme. salaatul lazi kon xeroo ci kafe suñu ma jàmm ah. banque nationale de développement économique BNDE Senico la haute autorité du Waqf banque islamique du Sénégal Sonatel Orange Digital Store ñooy ànd ak yéen seen émission antenne màggal. te daan ñu topp rek ci seen émission bi di antenne magal am nañu mbégte di leen nuyu wala amaat nañu mbégte di leen nuyu waaye it di leen euh, ziar ñi ngi jiital ci nuyo bi ak ci ziar bi sunu sang Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ko ñaanal sunu borom mu guddal fanam defal ko ak wér ba naar yi mu sumb ci liggéey maam ji Cheikhul Khadim mu yegale kook sagoom te lépp naan kook moom lépp naan nandu kook mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp kenn baña wute Euh, tey jii nu amaat euh, mbégte rek àndaat ak yéen ci seen beneen numéro euh, muy juróom-ñetti fan ci weeru safar atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ni nga xam ne noonu la émission bi di tëdde saa su nekk muy benn tomb boo xam ne danañu ko tànn fas ci yéene waxtaan laabirante ci sottante ci xalaat man ci jariñu danañu it jël ñi nga xam ne si ñoom ñooy waa bitim réew ak seen wàccaay yu solo yooyu nga xam ne si ñu ngi koy def. Euh, danañu euh, tamit euh, jël benn témoignage mooy kàddu yu seere yoo xam ne si mag ñi waax ñi defoon nañu ko jëmale ko ci ku tedd ki Cheikhul daa ñu amit lu ñuy wax rétro màggal muy benn extrait bu gàtt boo xam ne si daf ñuy fàttale rek màggal yi nga xam ne si ñoo weesu tey boo matul danañu dem atum 1993 bu ñu ko tuddee nag sunu xel day dem ci Cheikh Salih Mbacke daañu ci ñëwaat ca kanam tuuti incha allah. nii la waxtaan wi fas yéene tëddee daan nañu am tamit buntub nooy waaje waaye tey jii. xam naa dañu koy leb rek ba subaak ak jàmm incha allah bu ko defee ñu amaat yeneen kuréel yoo xam ne danañu fi ñëw ànd ak nun ci euh, nooy waaje nu ànd it euh, mbokk yi ak sunu partenaires yi nga xam ne si ñoo nuy gunge saa su nekk euh, te BND bokk ci mm, di banque boo xam ne mu ngi fii ci réew mi di jàppale nit ñi ba ci ndaw ñi nga xam ne ñi door a jóg jigéen ñi def ay mbootaay ak ñu ñëpp rek ñu leen di jàppale ci ubbi compte ak yaxanal seen xaalis daanu ànd it ak banque islamique du Sénégal mi nga xam ne moom mi ngi bëgg a yàgg ak émission antenne màggal at mu jot mu ñëw euh, gunge ñu euh, ci liggéey bi nga xam ne si ni ngi koy def. danañu ànd it ak Sénico Sénico ak ay produits yu am solo yi nga xam ne daf koy indi at mu jot euh, di ko jox rek ñi nga xam ne si ñoom ñooy pèlerins yi maanaam ñi màggal si. ak ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk si ngir ñu mën a def ay bernde yu jaar yoon yu am solo moom it mi ngi ànd ak ñun di nu gunge daanu ànd it ak waa digital store. ñoom it ak seen bagage yu baax yooyu macha allah eh, danañu ànd ak ñun eh, li nga xam ne moom mooy eh, liggéey bi kon bu ñu ci dollee hmm, la haute autorité di wax ñoom it ñu ñëw jokk rek ci liggéey bi ngir gën ñoo mën a gunge ànd ak ñun liggéey bi daan ànd it ak orange orange moom yàgg na ak télévision Al Mouridiyyah at mu jot gis nga ko dafay ñëw rawatina ci yenn grand événement yi di ñëw di ànd ak ñun li nga xam ne si moom mooy liggéey bi kon orange ñoom ñu ngi leen di sant leen jaajëfal di leen sargal bu baax a baax a baax ah, su ko defee kon mbokk yi nii la jataay bi fas yéene tëddee tey nag nu ànd ak sëriñ Madiama Niang mm, sëriñ Madiama di sunu ah, ganuk tey ah, moo nuy gunge ci li nga xam ne si moom mooy tomb bi ñu tànn fas ko yéene waxtaane nu ànd it ak ñu ànd it ak imam Ahmed ture imam ti di ñu gunge ci waxtaan yi ni nga xam noonu la koy baax o defee ànd ci it ak Serigne Mouhamadou Lamine Diouf moom it mu ñëw rek ànd ak noonu li nga xam noonu la koy baaxoo defee nii kon la waxtaan yi fas yéene de tey ñu am tomb boo xam ne moom la ñu tànn daa ci ñëw ci kanam tuuti ginnaaw bu gan ñi nuyoo ba noppi su ko defee ñu daal dugg ci waxtaan wi sëñ ma jama euh, ñu kon mën ngaa jël micro bi euh, ñu nuyoo salaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad mhm. wa ala alihi wa sahbihi wa tabiina lahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mhm. euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu mhm. euh, sëñ Modou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Ahmad di nuyu sëñ Lamine di rafetlu bu baax a baax jataay bi ak dalal gi waaye di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wi nga xam ne ci la nekk di weeru safar mm-hmm. di weer wi nga xam ne sëriñ bu mag bi waxal na boppam ne mm-hmm. tonowu wala bénéfice mm-hmm. bi muy amee ci liggéey gu muy liggéeyal weneen bi sallallahu alayhi wa sallam lu fees la lu feeñ la te weer wu nekk tonowu googu wala bénéfice boobu dafay dolliku waaye rawatina nag ci weeru safar rabaaxiya fi iqdaami xayril wara wa fi kulli shahrin zeydu ribxi wa fi safar kon yàlla nañu ko yàlla fayal lépp loo xam ne def nañ ko ci ay xeetu jaamu yàlla ngir santale ko sëriñ bi boroomam mhm. loolu yàlla na yàlla suñu borom na allahumma amin allahumma amin jërëjëf ma jama ñu ngi lay sant la jaajëfal bu baax a baax eh, ci nuyu tedd yu sell yooyu macha allah ngi lay eh, jaajëfal bu baax imaam salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Diouf ñu nuyu itam mboolem nga xam ne ñooy seetaan euh, jotaay bi ci mhm. télévision bi mhm. wala ñu koy déglu ci rajo bi mhm. euh, di nuyu suñu kilifa bu baax di ko jaarale ci Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, di ko ñaanal di ngeen ñaanal fan bu gudd ak ay ndam ci sumb yi nga xam ne sumbal nañ ko lislaam noonu la ñuy ñaanalee yi suñu borom bi tabaraka wa yërëm leen te jéggal leen amiin yaa rabbal alamin jërëjëf jërëjëf euh, joxal ma micro bi kon sëñ Mamadou Lamine Diouf sëñ Lamine salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mhm. sëñ Mourou ñu lay delloo nuyoo bu baax mhm. di ziar sëñ ma jamañang day mhm. am mbégte bokk moom jataay bi ziar sëñ Ahmadou Touré ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun bi màggal gi dooree ak léegi ci euh, seen émission bi di antenne màggal di ànd ak yéen ci ñaan yu tedd ak ziar yi nga xam ne ñi ngi ko jëmee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi di ànd ak wér mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mhm. mu matale ko te jànd waak moom allahuma amin jërëjëf sëñ Mouhamed Lamine Diouf mu nga kon mbokk yi euh, nii la jataay bi fas yéene tëddee tey tey nag ñu tànn benn tomb ci tomb yi nga xam ne moom la ñu daan tànn fas ci yéene waxtaan muy tomb am solo euh, muy li ñuy tuddee le patrimoine patrimoine euh, culturel mouride hmm, ci yoon mouride lan mooy euh, patrimoine boobu ci la ñu bëgg a waxtaane patrimoine nag euh, xam naa sëñ bi dana ma dimbali ci baatu wolof bi euh, dafa mel na moomeel lay doon wala dana ko jege sëñ Lamine waaw waaw moomeel waaw moomeeluk yoonu murid daal maanaam maanaam patrimoine dafa dafa bëri ay xa ay xaaj. waaw dafa bëri ay xaaj suy ma jëma. mu ngoog bu ci duggee am na ci lool. waaw mënees na koo laal ak loo xam ne mënees koo laal. dëgg la <laughs> mu ngoog mu ngoog kon danañ ci ñëw ci kanam tuuti euh, loolu la ñu fas yéene euh, waxtaanee tey euh, suñu ma jëma xam naa ci yow la ñuy tàmbalee tey buñ buñ ñee buñ ñee buñ ñee patrimoine ndax mën nañoo xam baat bi ci boppam mooy lan ak lan la ëmb. jërëjëf sëñ Modou. Mhm. patrimoine day mhm. xam nga baatu tubaab la. Mhm. waaye mhm. bu fekkee ci arab la moom la ñuy tuddee turaas turaas mhm. waaw bu fekkee ci olof la mënees na koo tuddee sax ndona mhm. waaw ndona d'accord euh, léeg-léeg sax tubaab dana ko jëfandikoo ne héritage héritage waaw daanaka sax mooy mooy ndona rek daanaka wala li suñ Lamine wax mooy ah, moomeel euh, baat la boo xam ne it euh, buñu xoolee ñëw na ci alquran wa taakuluuna turaasa mhm. aklan lamma mhm. foofu baat bi dafay firi li ñu tuddee ndono d'accord léeg-léeg it am baat yu ñëw ci biir alquran yoo xam ne dafay nuroo ak moom mhm. nga xam ne manees naa wax ne manees na leen a boole aw tekkin mooy lu mel ne ki baatu miraas waaw walillahi miraasu samawati wal ard wala baatu warisa wa warisa suleymaanu daawud wala baatu awrasa muy donal na mm. summa awrasna alqawma alladina kaanu yustadaafuuna mashaariqa al ardi wa magaaribaha allati baarakna fiha mm-hmm. wala summa awrasna alkitaaba alladina istafayna mm-hmm. min ibadina mm-hmm. waaw nga xam ne wa nuridu an namunna ala allazina studaifu fi l ardi wa najalahum aimmatan wa najalahum warithin nga xam ne baatu warisa miiras mhm. ak awrasa mhm. baat yooyu yëpp daa nekk manes naa wax ne dafay ñëw ci baatu ndona mhm. bu ko defee nag euh, patrimoine muy ndona bu ñu ko waxee rek manes naa wax ne mooy loo xam ne ay baay wala ay maam dañ ko bàyyee ak seen ay doom d'accord nga xam ne dañ koy donante génération par génération bu ko defee ndono loolu nag mooy loolu nga xam ne bàyyi wala maam yi dañ koy bàyyee seen ay doom mën naa doon loo xam ne lu ñu mën a laal la di ko tuddee patrimoine boo xam ne bu concret la mën na doon loo xam ne lu ñu laal la mu nekk patrimoine boo xam ne dafa abstrait mën na doon loo xam ne it dafa aju ci wàllu aada ak cosaan ñu mën ko tuddee patrimoine culturel mën a doon loo xam ne it dafa aju ci wàllu dundiinu askan wi. Mm. ñu mën ko tuddee patrimoine boo xam ne patrimoine social lay doon. Mm-hmm. muy ak turaas al ijtimaai. Mm-hmm. xataa sax mën na doon lu aju ci wàllu pas-pas. Mm-hmm. wàllu diine. nga xam ne mën nañ ko tuddee maanaam turaas ad diini. wala al aqadi. mooy li ñuy tuddee patrimoine boo xam ne patrimoine culturel la wala religieux. bu ko defee kon mënees naa wax ne mën na nekk it loo xam ne dafa aju ci wàllu xam-xam. lu ñu tuddee ko atouras al adabi mhm. muy li ñuy tuddee littéraire waaw nga xam ne kon euh, am na ay xaaj yu baree bari yoo xam ne mën nañ ko koo xaaj mhm. waaye ko doon tënk rek mënees naa wax ne mooy loo xam ne daal mhm. ay baay wala ay maam dañ ko bàyyee seen ay doom ñu di ko doonante loola nag mën naa laal ay wàll yoo xam ne wàll yu baree bari la d'accord te lool it bu ñu xoolee sëñ Modou euh, li tax waxtaane ko am solo mënees naa wax ne patrimoine muy ndona mooy li nga xam ne bu ko nit ki sàmmee mhm. mooy sàmm na liñ koy xamee ci wàllu diineem mhm. sàmm na liñ koy xamee ci wàllu aadaam ak cosaanam d'accord maanaam la ñuy tuddee identité culturelle mhm. wala identité religieuse xam ne nit ki bu xasee sàmm aadaam ak cosaanam loola mooy wane ne moom liñ koy xàmmee mi ngeeg moom naka noonu it manees naa wax ne nit ki bu sàmmee ndonaam loolu mooy wane ne wattu na démbam mooy la ñu tuddee taarixam waaw te kenn ku ci nekk bëgg nga sa démb des fi ngir nga mën caa tabax sa ëllëg wala nga mën caa tabax sa tey mm-hmm. loolu nag ngir nga mën koo def foo jaar da ngay sàmm sa ndono loolu mm-hmm. beneen bi it mooy bu ñu xoolee dañu nekk ci benn àdduna boo xam ne mm-hmm. um, dañ koy tuddee àdduna bu xëttaloo arab yi naan ko awla ma tubaab yi naan ko mondialisation nga xam ne loola laal na wàllu yu baree bari moo xam mondialisation boo xam ne dafa aju ci wàllu koom-koom mhm. ñu naan ko mondialisation économique mhm. wala loo xam ne dafa aju ci wàllu aada ak cosaan ñu naan ko mondialisation sur le plan culturel mhm. moo xam dafa aju ci dundinu askan wi ñu naan mondialisation sur le plan social yooyu yëpp bu ñu xoolee réew yi nga xam ne ñooy réew yu mag yi buñ leen mën a tudde noonu wala réew yi nga xam ne dañu jàpp ne ñooy réew yi am doole ñoom dañuy bëgg a imposer li nga xam ne mooy seen ay gisiin yeneen réew yi néew doole. bu ko defee nag bu boobaa nit ki bu fekkee. xamut lan mooy am mhm. ngir war koo mën a taxaw ngir war koo mën a sàmm. Mhm. bu boobaa dañuy wax ne kon ci biir ma boobu ci biir mondialisation boobu. Mhm. mënees naa wax ne kon dafay ñàkk li nga xam ne moom lañ ko doon xàmmee. mooy identité am kon daal bu ma mënee tënk rek. damay mën a wax ne kon. ndono daal mooy loo xam ne rek ay baay wala ay maam dañ koo bàyyee ak seen ay doom mm-hmm. loolu nag mën naa laal wàll yu baree bari te sàmm ko it mooy mën a tax nit ki sàmm démmam mm-hmm. waaye mooy mën a tax nit ki sàmm li nga xamante ne si moom lañ koy xamee moo xam ci wàllu diineem moo xam ci wàllu aadam wala ci cosaan buñ ne woon patrimoine ci lislaam mm. tey lan lañ mën a teg baaraam ne lii patrimoine l'islam la waaw xam nga bu ñu xoolee sax gis nga ba ci ñun ñun suñu xew-xew yi ni def nii sax. waaw ci ci ci wàllu diine wala moo xam ay cérémonie la yoo xam ne. Mm-hmm. Eh, dafa aju ci wàllu dundinu askan wi yooyu. Mm-hmm. loolu lépp mën na dugg ci biir patrimoine. Mm-hmm. Eh, tey bu fekkee ci lislaam la. xam nga tey bu ñu eh, mën nañ jël lu mel ni ki alquran. alquran patrimoine la lislaam. daan lislaam dëgg-dëgg. téere bi koy jëmmal mooy alquran al karim. waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci patrimoine bi la bokk ndax ñaar yooyu dañu naan sax ñooy almasdaraan al asasiyaan mooy ñaar yi nga xam ne ñooy ñaari source yi nga xam ne ñooy ëpp solo ci yi nga xam ne jullit ñi ak nitu xam-xam yi dañ cay dellu di yoonal dara mhm. mooy benn daganal mhm. wala araamal wala yu mel noonu mhm. nga xamante ni si foofu la ñuy foofu la ñuy dellu loola mënees naa wax ne dafay dugg ci lu ñu tuddee patrimoine religieux bu ñu xoolee sax ci wàllu googu ñu baree bari doon nañ ñaan yàlla ci nit ñu baax ñi dale ko ci yonent yi ngir yàlla sàmmal leen maanaam ndono loolu ci wàllu diine masalan bu nu jëlee yonent yàlla Zakariya bi mu demee ba mage lool ngir euh, li mu yor mu bañ a sànku dafa ñaan boroomam ne ko nag ma may njaboot goo xam ne moo may sàmbal ndono loolu mooy kaafha ya ayn saad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya iz naada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni wastaala alrasu shayba walam aku bi duaika rabbi shaqiya fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya nga xam ne kon dafa ñaan boroomam mu defal ko loolu mm-hmm. yonent yàlla ibrahim noonu la ñaanee woon boroomam mu defal ko yónni ci xeet wi koo xamante ni dafay sàmm ndono loolu ah. te mooy ndonol jàngale ak yar rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim mhm. innaka anta al azizul hakim mhm. ndako noon it noonu ngay fekkee ba ci sax bu ñu xoolee euh, sëriñ bu mag bi mhm. bokk na ci lim doon ñaan boroomam hada wa habli min ladunka ya mu'in durriyatan tayyibatan tujaddidu mhm. nahja nabiyil Mustafa tajtahidu mhm. loolu mooy yàlla may ko rek mhm. njaboot goo xam ne dañuy mën a sàmm loolu nga xam ne mooy ndono loolu ndono loolu nag li ci ëpp solo mooy alquran li ci ëpp solo mooy li nga xam ne moom mooy xadiisu yonent bi sallallahu alayhi waaye ba ci jumaa yeeg jàkk yeeg loolu lépp dafay dugg ci li nga xamante ne si moom mooy mhm. moom mooy nonal nonal lislaam xataa ba ci borom xam-xam yi sax li ñu bind ci ay téere mhm. di leeral xam-xam yi lislaam yeeg ak ya ca aju mhm. ak jumtukaay yay tax ñu mën koo dégg loolu lépp mënees naa wax ne dafay dugg ci nonal lislaam ba ci colin gi lislaam sant góor soloo ko mm. ni mu sante jigéen soloo ko mm-hmm. loolu lépp dafay dugg ci li nga xamante ni si moom mooy noonu lislaam mm-hmm. ni mu jàngalee ñu waxe ko mm-hmm. ni mu jàngalee ñu jëfe ko ni mu jàngalee ñu jëflante ko loolu lépp dafay dugg ci li nga xam ne moom mooy noonu lislaam ba ci sax julli yi ñuy def ak koor yi ñuy defak ak aj màkk yi ñuy def loolu lépp mënees naa wax ne dafay dugg ci li ñu tuddee noonu lislaam ndax yooyu yëpp kenn mënu koo génne ci biir loolu d'accord léegi loolu la san solo la am maanaam ci dundiinu jullit ñi ak ci dund seen diine. moom jëmmi patrimoine ci boppam. xam nga fi mu ne tey. Mhm. bu fekkee dañoo sàmm ndono loolu. waaw xam nga tey bu nu jëlee alquran al karim. waaw xam nga yàlla sunu borom moo ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun mhm. ñoo ko wàccee. Mhm. waaye ñun ñoo koy sàmm. sàmm googu ko sunu di sàmm nag daf koy jaarale ci ay doomu aadama. masalan bu nu jëlee ci. Euh, aboubacrine siddiq mhm. euh, bi xoroobu ridda amee mhm. ñu baree bari di faatu mhm. ci ñi nga xam ne dañu wattu woon al alquran al karim Seydina Omar daf ko defal benn proposition proposition bi mooy lan mooy euh, ñi nga xam ne ñoo wattu alquran ñi ngi faatu ci xare yi ak nangam kon nag nañu dajale alquran al karim dajale googu li tax mooy lan mooy nañu sàmm téere bi alquran ji ku mel ne ki Seydina Ousmane bi mu ñëwee gis ne l'islam mi ngi yaatu. Mhm. di dugg ci ay réew yu baree bari. Mhm. am ci ñoo xam ne du ñu ay arab mhm. njànginu alquran yi mel ni ki lu commencé wuute. am ay yenn mën na am ay yàq mën na am ay nangam ak nangam. gis nga dañu dañu am benn téere boo xamante ne si. moom lañu ñu tegoon ca sa boobu la ñu jëloon di ko di ko di ko tasaare ci réewu jullit ñi ñu mel noonu. loolu lépp mooy sàmm li nga xam ne mooy noonu loolu nga xam ne mooy téere bi. léegi nag boo ko sàmmee. mooy waral jullit bi mën a xam naka lay jaamoo boroomam. Hmm. ndax alquran moo la koy jàngal. Hmm. waaye alquran boo xoolee daf lay jox rek yi nga xam ne mooy ay junj. waaye wax yonent bi mooy ñëw di leeral wa anzalna ilayka dikra hmm. li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun loolu moo waraloon boroom xam-xam yi bi nu ñëwee gis nga ci wax yonent bi dañ doon xool di segg ne xadis bi wér na maanaam dafa nekk loo xam ne saxiix li daatihi la saxiix li xayrihi nga xam ne xadis bi ci jëmmi boppam dafa wér wala boog am na yeneen yu nu mën a jaare yu koy wéral wala ñu ne am na darajatul xasan li daatihi xasan li xayrihi wala xadis bii day dafa nekk xadis boo xam ne makruh la maanaam di segg ci waxi yonent bi wala ñu ne xadis bi ahaad la kenn ko nettali wala mutawaatir la ay nitu ko nettali yoo xam ne ñoom ñëpp mënuñu dajee ci wax lu dul dëgg maanaam yooyu yëpp li tax ñu di ko def ak di ci taalif ak di ci bind mooy sàmm ndono loolu ndax ndono loolu bu sànkoo te sànku gi bokk na ci mooy buñ demee ba nga xamante ne si maanaam lu baree bari dugg ci loo xamante ne si waru ca dugg bu boobaa jullit bi dootul xamati ndaka lay toppe boroomam dootul xamati lu aju ci ay wàllu jëflanteem ndax bu ñu xoolee alquranul karim téere la boo xam ne dafa matale dafa boole lu bare bari mooy tibyaanan li kulli shay nga xam ne attey sëy ma nga ca attey ma ca at tey jaay ak jënd ma nga ca yonent bi ñëw gën ko leeral ak yu mel noonu kon mhm. li ma bëgg a wax foofu rek mooy kon sàmm nono yooyu daanaka manees naa wax ne mooy sàmm lislaam ndax nono loolu bu fi nekkatul rek manees naa wax ne jëmmi lislaam moom bu boobaa day far kii waaw ndax ndono dana évoluer dans le temps ci ci ci jamono li ma bëgg a wax foofu mooy euh, tey par exemple buñ ne ci jamono yonent bi sallam mhm. nangam la ñu daan def mhm. waaye nag ci sunu jamono weesu nañu loolu maanaam jamono weesu na foofu mm-hmm. nangam la ñu toll mm-hmm. benn misaal rek laa ciy joxe tey mm-hmm. lu mel ne alxuraanu karim ma léegi ay téere am na yoo xam ne moom la ñu moom la ñuy téye ca jamono ci lu njëkk sax téere amutoon gars yi dañ daan kii rek ñu mokkal dañ daan bind ci ay yax ak ay ay ay ay der ak yu mel noonu ba si naa Ousmane ñëw dajale ko ba fexe ba mu nekk ab téere ñuy dox tuuti mu commencé gën a nekk téere yoo xam ne si gën naa yaatu ba kenn ku ne mën a am sa téere bopp te doo yàqal sa morom waaye ñu demaat ba jamono dikkaat encore ñu commencé di nga gis léeg-léeg sa téléphone bi nga mën cee am kaamil alquran mhm. ci misaal léeg-léeg ñu ne la yonti saa salaam nangam la daan sol mhm. waaye yow da ngay gis ne ci jamono ak doxiinu jamono mhm. loola tey boo ko soloon boo génnee fii ñu reetaan ndax xewatul kon foofu li ma bëgg a wax mooy ndax maanaam ndono ak évolution wu temps naka la demee maanaam bu ñu ko perte day ça veut dire que perte nañ suñu ndono l'islam wala moderniser ko dëppale ko jamono yàqul dara. waaw ah, waaw xam nga loolu fi mu ne. question la boo xam ne sax l'islam daf ko lijjanti bu ah, yàgg. Hmm. xam nga boo demee ci diine. Hmm. dafa am lu ñuy tuddee ay mbir yoo xam ne dafa sax. Hmm. maanaam lu ñuy tuddee ay sawaabit. Euh, maanaam tubaab bi naan ko ay mbir yoo xam ne dafa constante. nga xam ne lii moom fi mu nekk rek. du fa jógee du fa ñu ne julli tisbaar. moom ñeenti rakkaa la. dañ koy julli timis ñetti rakkaa la mhm. ñaar ya dañ koy wax ci kaw benn ba dañ koy yalu mhm. yooyu ay mbir la yoo xamante ni si dafa dafa sax mhm. loolu du soppeeku d'accord ndaka noonu buñ ne koor ci weer wii lañ koy def loolu dafa doon loo xamante ni si dafa sax du soppeeku waaw ndax chahru ramadan alladi unzila fihi alquran aj ñu ne ci weer yi lañ koy def alhajju ashhuru maalumaat yooyu du soppeeku maanaam yooyu mooy yi nga xam ne daanaka ak yeneen yu mel ni ki yooyu am na yeneen yoo xam ne nag mën naa soppeeku ñu koy tudde ay mutaxayiraat <laughs> li ñuy tudde les variantes nga xam ne daanaka jamono ni muy demee contexte yi ni muy soppikoo mhm. maanaam loolu dafay soppiku di ànd ak loolu mhm. masalan lislaam ci wàllu colin mhm. waxul ne nekk nit ki yére bu mel nangam ngay sol maanaam moom li ko itteel ci colin bi mooy bu fekkee colinu jigéen la mooy na sàng aw yaramam mooy bu mu yaraax bu mu tafee ci aw yaramam bu mu doon loo xam ne lu gàtt la d'accord bu fekkee colinu góor la maanaam na doon colin boo xamante ne si lim war a sàng ci aw yaramam bu boobaa na ko sàng am maa nag colin boobu dafa war a nekk nii lañ koy ñaweek nee lañ koy ñawee wala nangam wala nangam wala dafa war a nekk costume wala nangam loolu jamono ci boppam moom moo koy leeral beneen bi ci teg mooy na mu jàngalee mooy bu fekkee ku ku kuy solu la ku góor la maanaam bu boobaa na na yem ci ay kiyam yooyu ay xeetu colin la yoo xam ne lislaam moom moo ko jàngale d'accord beneen bi mooy li nga wax ci alquran al karim mhm. kenn ku nekk xam ne ne évolution am na mhm. ndax téléphone yi léegi mhm. eh, ñi ngi kii kii alquran ndax jumtukaayu àdduna ak jamono lépp loo xam ne jumtukaay la rek wasila la li am solo mooy fa nu jëm bi ñu koy jaare bu dee loo xam ne diine téréwu ko rek bu boobaa kooku amul benn jafe-jafe nit ki mën koo jëfandikoo mhm. ndax loolu mooy boole li nga xam ne mooy mhm. cosaan mhm. ak li nga xam ne mooy la ñuy dund ci jamono ji loolu moo waral sax boo xoolee ci borom xam-xam yi boo demee ci téere yi mën nañu def ay fatwa yoo xam ne ban koy def dafa am jamono ja lam laajoon ba tax ñu ubbee noona waaye ñëw nañ ci jamono joo xamante ni si loolu mën naa soppeeku. waaw waaw loolu mën na soppeeku. mën na maanaam jamono ji da ciy da bu baax daal. da ciy joué mën naa ci joxe misaal. tey waaw bisimilah. bu ñu jëlee ci azaka muuru koor nii. xam nga ci ci ci mazhabu Malik dañuy wax ne mm-hmm. ba ci mazhab Hanabila yi dañuy wax ne dañ koy génne ci lu ñuy tudde wàllu pepp ak ay ceeb ak ay nangam dañuy wax ne xadis bi xeet yooyu la tudd mm-hmm. manees na koo nangu mm-hmm. manees na koo nangu waaye bu ñu xoolee ci suñ jamono tey ni ñu dundi rawatina sunum réew di senegal tey bisu korité nit ñi ay ay soos la ñuy togg ak ay nangam ak nangam yooyu léeg-léeg am na ci loo xam ne boo ko joxee nit ki daanaka mën nga koo xaw a gën a yokk sax ay jafe-jafe ak yu mel noonu mm-hmm. moo tax ñenn ñi gis ne warees na koo mën a joxe xaalis mm-hmm. ndax bu boobaa jubluwaayu mbir mi rek la xool ak yu mel mm-hmm. noonu moo tax dafa am na ko mën na ko soppi ak yu mel noonu waaw jërëjëf jërëjëf sëñ bu baax a baax ma des na ci yem foofu ba dellu si waat ak jàmm rek incha allah mais ni nga ko ubbee am na solo lool lool lool euh, muy euh, patrimoine kon day mel ne maanaam diine joo gis réew moo gis askan woo gis nit ñoo gis rek am nañ seen xeeti dundin yoo xam ne si la ci ëpp ci seen maam ak ci seen i maamaat eh, ci lañu ko ci la ñu ko donne eh, bu dee diine la yonent ba ñëw ba leen ñëwal moo indi loola ñu donne ko ci moom ak xeeti jëfin yoo xam ne si mooy ànd ak diine ji ngir accompagner ko su dee ñoo xam ne si gëmuñu tamit da gis ci seen xeeti solin wala seen xeeti waxin wala sax léeg-léeg ci seen xeeti lekkin li ñuy lekk xam nañ lu ñuy lekk am na lu ñuy lekk bërëb sàngam te buñ koy néewoon fii yow doo ko nangoo lekk kon dafa mel ne mais wàllu lekkin wàllu waxin wàllu jëfin wàllu yëpp da gis ne toujours nit ki dana am lu mu donne ci ay maam loo xam ne si moom lay moom lay moom lay jëfandikoo loolu nag dafay mel ne su ñëwee euh, islam moom daf ci am wàll saa su nekk ak réew mu mën di dem soo demee Inde dañuy dund seen lislaam mais dañ koy booleeg seen patrimoine soo ñëwee Sénégal dañuy dund seen lislaam mais dañ koy booleeg seen patrimoine soo demoon Bangladesh dañuy dund seen lislaam mais dañ koy booleeg seen patrimoine kon dafay mel ne euh, patrimoine ak lislaam lu jaxasoo la ndax ni ko suñ euh, sëñ ma jamoy waxee dafay mel ne lu ñëw rek islaam dana ci am wàll waaye nag toujours day segg la ca baax mu téye ko la ca baaxul mu fexe ba génne ko mel ne kon euh, patrimoine euh, bu doon ci l'islam rek laata ñu ñëw ci yoonu murit parce que accès guñ ci yoonu murit waaye tey ci biir l'islam rek dañuy xam ne kon am na patrimoine bu riche riche riche riche ci wàllu goo ko jël nag euh, yi sëñ ma doon tudd léegi tudd na fi culturel tudd na fi religieux tudd na fi social tudd na fi culturel yooyu yëpp muy kon ay domaines yoo xam ne benn bu ci nekk islam da ci am cër bu baax a baax a baax te day bëgg it nit ñi di ko sàmm bu baax a baax day day dëgëral seen diine ah waaw jërëjëf euh, sëñ Madiama ci mm-hmm. ubbi bu am solo boobu nga xam ne mm-hmm. ubbi bu yaatu la. Mm-hmm. indi ay tomb yu bare bare bare yoo xam ne. Euh, waxtaan yi mënu ko génn. Ah. waxtaan yi mënu ko génn loolu. Euh, ndax indi na tomb yu am solo. ni nga ko waxee rek noonu la islam. dafa am civilisation. am culture am. nga am léppam. Ah. waaye nag l'islam moom. Euh, moom day xool li baax rek. Mhm. bi mu ñëwee sax bi mu ñëwee. Mhm. bari na lu mu fekk. Mhm. ci ay doxalin. dindiwu ko. d'accord daf ko adapté. bari na lool yoo xam ne boo xool ci da xam ne lii cosaan lu yàgg la jiitu na lislaam lislaam dikkee mu bàyyi ko fa ñu di ko wéyal masalan bu demee ci gox bu nekk nag na fa lislaam duggee su dikkee ñooy fekk na ay aada fekk fa ay cosaan. Mm-hmm. fekk fa culture. su boobaa nag léegi day xool la ci dëppook moom mu bàyyeeku nit ñu adapté ko. parce que mm-hmm. loolu moyen de kii am lay doon eh, day tax mu mu yomb ci moom. Mm-hmm. mu nit ñi gën a mën ko mën ko gaaw a nangu. gën a adapté wu ci moom. ndax nit ki boo soppeewu dundinam rek. boo tuut eh, di nga indi ay jafe-jafe. mais soo ko bàyyee nag dundinam bi mu tàmm. te loola dëppook li ngay woote loolu dina yombal xam nga lu bari mm-hmm. bari waaw waaw léegi nag euh, patrimoine bi nga wax nii ni sëñ ma jam indi ci daanaka xaaj patrie yëpp mm-hmm. kon l'islam noonu la ko déggee mm-hmm. soo déggee muy wax ne xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islam xayrukum fil islam xayrukum fil jaahiliya ku la gën démb moo la gën tey parce que fa am ay valeurs yoo xam ne dafa nekkoon ci ñoom waaw parce que même arab yi masalan am nañ ay valeurs yoo xam ne euh, bi ñu dikkee Euh, l'islam da koy dal di adapté bokk na ci li ñu tudd diyaafa mooy ganale bëgg ngan maa maanaam man man fonk gan waaw mm-hmm. ah, fonk gan loolu seen cosaan la woon mm-hmm. donc moom loolu moom seen si seen culture la bokkoon waaw mm-hmm. ah, mais bi islaam dikkee lay la loolu day lu baax da koy da koy dafay adapté adapté gi mu koy adapté nag léegi loolu daf leen di dimbale ci xam nga ki loolu pour mu dund di diineem day yomb. day yomb ah. day yomb. Mhm. Euh, naka gox boo dem rek. Mhm. Euh, boo demee soo demee da ngay gis ne ba ci wàllu col gi mu wax nii. Mhm. tey boo bu la am Mauritanie euh, boo ko gisee da xam ne kii Mauritanie la. waaw naara Mauritanie la. bu dee bu dee ku dëkk booru Indonésie. ak ñooñu côté boobu xam ne dañuy woor doo ko def yëpp mais ay julli bi da xam ne kii asiatique la. bu la sawu jee robe